ñun ñëpp ñu man ko jubóo te dañu bugg a defar suñu gox waaw ni koy defaree mooy dañ koo pàcc dañ koo xaaj dañ ko pàcc si ñetti pàcc pàcc bu njëkk bi mooy ñoo defar dëkk bi notamment Saara te setaluñ ko ñu tàmbalee ci set setal moo tax ñu jóg taxaw jigéen ñi takk seen sër góor ñi takk seen seen ñu taxaw ñu ne dañuy defar suñu dëkk. dafay doon ay ay ay ay kii yu répétitif cest à dañ koy jël ay programme li ñuy tàmbalee mooy set setal bu ñu jógee ci set setal bi dañuy def lu ñuy wax reboisement parce que gis nañ ne Kaolack amul garab donc garab yooyu manque fi dafay impacté ci tàngooyu dëkk bi dafay impacté également ci xorom yi nga xam ne mu ngi lekk miiru kër ñu ne bu jógee ci set setal bi bu mu set bu ñu defaree ba set. dañuy jëmbat ay garab boo xoolee am na ay rigoor yu jaar ay rigoor yu yu jaar nii dem ba ci canal bale bële boo xoolee ñu ngi doon sax jéem a euh, dindi débouché canal bi euh, canal yi ñu ñuy làppe ñu def def nañ sax d'ailleurs des des pétitions ci kër yi ku nekk signé parce que ñoom ala si à la demande de la population ñoom ñoo tuyaux yi kat bu ñu sañoon bu ñu ko mënta euh, changer ñu defal leen beneen méthode boo xamante ne dinañu permettre ba fii du parce que fi ngeen taxul ñu yëpp bu nawet bi jotee kenn du génn këram te gis nga ne fii ñëpp ay xale fi ne te xale ci ndox mi la ñuy foofu ñu doon lancer un appel euh, aux autorités ñu ñëw dimbale ñu te yàlla rek tax ne leen saara sonn nañ te ñoo ngi yuuxu ñu ñëw dimbale leen te yàlla rek tax bu nawet bi jotee ñu xool beneen méthode mais tuyaux d'évacuation bi ñu xool lu ñu ko dimbalee